AGT News Cheikh Yérim Seck baadu lañ koo yónni Cheikh Yérim Seck baadu dafa am koo xam ni moo ko sant bu nekk di def jamono ji toogoon ci ab ruqam ndekete mi ngi bind toogoon ci ab ruqam ndekete moom Cheikh Yérim Seck mi ngi préparé wu ngir dal di génn pourquoi Cheikh Yérim Seck toog ba tey jii di doog a génn ci ab ruqam génnee ab livre boo xam ni liñ ci gisagum yépp mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo contre le président Macky sàll ñoom la nekk di daal di sànni ay xeer gis nañ ci capitaine Touré gis nañ ci Ousmane Sonko am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci biir ñoo xam ni saa su ne dañ daan attaquer le pouvoir saa ne ñu d'accord avec le régime en place tey moom Cheikh Yérim Seck mu ne dafa bind ab livre boo xam ne li ko ci tax a jug mooy tabax Sénégal li ko ci tax a jug mooy jàmmi Sénégal li ko ci tax a jug mooy xool naka la ñuy def ba suñu réew mi lay ñu daal di koy tegaat ci yoon boo xam ni jàmm ak salaam dafiy am waaye itam liberté ak démocratie itam dafay daal di am mais est-ce que du fitna la nekk di yee moom Cheikh Yérim Seck du ay accusation yu kenn xamul fu mu ko jëlee moom la nekk di daal di indi ci li nga xam ni moo di làngum politique gi gisal rek bi mu indil Ousmane Sonko ci lu jëm ci corniche ouest bi nekk fii ci Dakar def nañ ci ab jàngat ngir daal di ci indi ay leeral waaye xoolal yooyu la accusation ñu ne déetawaay mu indiwaat yeneen teg ci ndodd ki nga xam ni moo di la capitaine Seydina Omar Touré ne moom moo envoyé message ki di Ousmane Sonko ngir yëgal ko plainte bi nga xam ne Adji Sarr daal dina ko koy def tekk ci àpp ndoddam ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ñu ngi ci biir livre bi dinañ leen ko jukkil saa su ne di ci defal ab jàngat waaye li ñu ci amal solo mooy pourquoi Cheikh Yérim sekk toog ba léegi nii di doog a génn ndax dafa bëgg a taal Sénégal ndax daa bëgg a yëngal réew mi ndax dañ koo yónni est-ce que nekkul mercenaire est-ce que nekkul ko xam ni ndakate li mu toog yëpp ñu ngi ko sant à que mu bind ngir moom ñu am lu ñuy waaj a préparé ñu ngi jëm ci li nga xam ni moo di procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ni gars yi lenn kese lañ bëgg mooy daal di yóbbu dossier boobu devant le tribunal ñu toog à quelques jours de cela doyen des juges di Oumar Maham Diallo war cee jël ab décision Cheikh Yérim Seck génnee livre am bile ñëw bafuyuwaat lépp loo xam ni tegu woon na fi comme ay thèses et des hypothèses xoolal fa mu laal muy Seydina Omar Touré mi nga xam ne moo yoroon enquête bi dem ba ne Seydina Omar Touré dafa mel ni bopp bi neexul Seydina Omar Touré moo envoyé message Ousmane Sonko alors moom capitaine Touré sax jëloon na ab kaamil waat ci li nga xam ni moom moo ñeel digganteem ak Ousmane Sonko ne mosu koo xam lu dul jour bi nga xam ni ca dem di ko yóbbul li nga xam ni moo ñeel convocation bi loolee nekk ay accusation yoo xam ni dafay ñëw yëngalaat dossier bi yëpp ce qui fait que actuellement tout est à revoir sénégalais yu ci bëri bu ñu deful attention dinañ tàmbali di am ay doute ci ki nga xam ne ma di capitaine Touré ak lu ñeel dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr est nekkul ab diversion boo xam ne moom la ñu sant Cheikh Yérim Seck ngir mu daal di koy ñëw def ci langum politique gi Cheikh Yérim Seck lan mooy mission exacte bi waral mu génnaat ci ab ruqam duggaat dans la vie publique du Sénégal moom moo taxawoon kat ne génn na ci ndax am na yeneen yoo xam ne mu la gën a taal ndekete génn gam ca génn il s'est donné du temps pour mën a toppatoo ab njabootam waaye ndekete ma indaale loo xam ni bu génnee rek daal di yëngal suñu Sénégal gile nous pouvons pas comprendre ba tey lan mooy enjeu bi nga xam ne moom Cheikh Yérim Seck moom lay recherché ci livre bii mu daal di bind dañoo jàpp ne moom daf ne lu jëm ci wàllum jàmm ak salaam moo tax bii la livre mu daal di koy indi ci réew mi waaye bu dee jàmm ak salaam ngay ut est-ce que war na mën a tax ngay def ay accusation non fondée est-ce que booy ut jàmm di wut salaam di nga accuser ay nit à tort sans pour autant nga génne ay preuve yi nga xam ne moom moo ci war gis nañ capitaine Touré ne moom da koy porté ji plainte Ousmane Sonko du ñàkk dina génn def ab sortie ci li nga xam ni moom moo ñeel accusation yañ def ca moom fële ca corniche ouest ba jamonoy 2019 bi nga xam ni ñu ngi préparé élection présidentielle yi lii doy na waar lool lii yéeme na lool Sénégal nag à chaque fois buñ waree jublu vers l'essentiel il faut ñu am loo xam ne moo ñuy divertir à chaque fois bu ñu amee loo xam ne moom lañ def focus jublu ci di ko préparer di ko waajal tout simplement am loo xam ne mooy ñëw daal di koy perturber dañoo nekk ci am réew moo xam ne réew mu doy la am na nag ñoo xam ne ay mercenaires intellectuels lañ loolu faw ñu def ci ab taxaw seetlu bu gàtt mercenaires intellectuels ce sont des personnes yoo xam ne ñoom dañuy jàng ba ne ar ay boroomi xam-xam la ñuy doon dañuy xam lu bëri am itam benn expérience boo xam ne dañ koy am ci langum politique gi maanaam mën nañ bañ nekk sax ay politiciens waaye nekk ay ay journalistes ay écrivains entre autres ñoom ñoo ñooñu noonu parfois dañuy nekk ay mercenaires maanaam day am benn chef d'état exemple boo xam ne day commandé à ce que nañ ko bindal ci tel ou tel sujet indi ci ay xalaat indi ci li nga xam ni moom moo di information yu yees yoo xam ne dafay permettre ñu mën a divertir population bi pendant un moment ñoom ñu mën a jublu ci leneen loo xam ni seen population luñ ko daal di ndax am nañ benn sujet divers boo xam ni moom la ñuy daal di waxtaanee loolu dafay daal di am ci ab état day am ñoo xam ne ay mercenaires la ñu doon moo tax ñu ne sekk du loolu la nekk di exercer actuellement nii est-ce que nekkul ne livre am bii mu génnee luñ ko commandé la luñ ko sant à ce mu def ko la ndax ku dégg sax analyse yi nga xam ne ñu ci bëri bari def nañ ko ci comme ku ci mel ni Cheikh Bara Ndiaye soo waxee mu ne la ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim sekk ni muy waxee dangay ngay sentir ne kii dafa penché wu du côté du président Macky Sall bien vrai que nag du ko wax clairement ñëpp di ko dégg mais da ngay gis ni kii ay analyse am dafa penché wu du côté du pouvoir loolu nag bu amee ci ab borom xam-xam day indi jafe-jafe ci am réew gis nañ ko fan yi rek ci ki nga xam ni moom mooy le ministre de la justice garde des sceaux di Ismaïla Madior Fall moom mi nga xam ne dafa taxawoon publiquement devant tous les Sénégalais ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ici au Sénégal kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat ci réew mi il n'y a pas place à interprétation moom Ismaïla Madior Fall moom mu nekk borom xam-xam bu mag nekk itam ku ñu daal di nawloo ci lu jëm ci wàllum droit moom moomee tey moo ñëw changer discours moom moomee tey moo ñëw indi beneenam xar kanam jëmale ko ci li nga xam ni moom mooy wàllum constitution bi ne lam ca waxoon démb ak lam ciy wax tey ne nekkut benn lam ca waxoon démb loolu droit la toppoon waaye toppatul droit lim topp mooy lu jëm ci wàllum politique moom c'est un intellectuel am fu ñu ko doon xaar tey gis nañ fi mu génn génnee Cheikh Yérim itam la même chose bu fekkente ni livre am bii nga xam ne daf ko daal di bind daf ci am ay information yoo xam ne c'est indéniable moom Cheikh Yérim sekk na ko daal di génnee teg ko sur la table sénégalais yi jël ko comme ay preuve daal di mën a xool lan moo xew ci réew mi exactement ak kenn ku ci nekk ca lam la cité yow lan nga ci daal di lii mooy li nga xam ne peut-être doon na mën a indi jàmm ci réew mi ndax nag wax ci bëri na lool coow li bëri na trop Cheikh Yérim Seck kenn dégg ko mu génn daal di def li nga xam ni moo di ab présentation wu livre am wala bokk quelques interviews yoo xam ni dinañ ko ci gis muy am ay passage yoo xam ni dina ko daal di expliquer bés bu waree def loolu de dina sonn trop ndax bari na ci yoo xam ni sénégalais yi ñu ngi koy posé wu ko ay question teg ko di ko xaar ndax bëgg nañ ci am des éléments de réponse ndax dafa bëri ay scandale yoo xam ni moom tudd na ko dafa bëri ay révélation yoo xam ni moom def na ko te lii nekk na loo xam ni bés buñ ci jugul rek ëllëg mën naa jur ay jafe-jafe capitaine Touré na day porté ji plainte on va voir fan la wànnente di mujjee ak yi gëtam Cheikh Yérim du ñàkk moom itam dina yoo xam ni dina ko indi ci mbir mi Ousmane Sonko itam dal dina ko ci accusé ca la nga xam ne moo xewoon ca Corniche Ouest ca nam ko nettalee ci biir livre am nga xam ne Moustapha Diop sax ñëwaat na ci de fond en comble indi li nga xam ni mooy la vraie histoire bi nga xam ne ñoom fekkee woon nañ ko ci atum 2012 maître Abdoulaye Wade joué woon ci ab rôle bu am am solo rôle fair play rôle démocrate rôle koo xam ne da nga bëgg sab adversaire ndax xam nga ne sab adversaire la ci langum politique gi waaye nekkul sa adversaire boo xam ne face to face ngeen di def saa su ne ci doorante te accusante ay viol ak defante yoo xam ne daf lay daal di tuutil lii mooy li nga xam ne bëgg nañ koo am comme des éléments de réponse par rapport ak kii di Cheikh Yérim Seck lan moo waral ab ñëwaatam ndax dafa ñëw pour mercenaire aussi ndax dafa ñëw daal di fi fiy di jàmm wala boog si tout à fait le contraire Cheikh Yérim Seck dafa ñëw ngi daal di jaxase carte gi lu ci mënti am mooy actuellement il le buzz actuellement ñëpp moom la ñuy waxtaanee lépp tourné waat na jëm ci moom lu ci mënti am mooy que ne yàkkamti nañ moom Cheikh Yérim Seck mu ñëw toog janoo ak sénégalais yi ngir expliquer ñu clairement de fond en comble livre bi lim ci bind ak itam ñim ci accusé ñëpp lan moo waral mu daal di leen ciy tudd AGT News